baby touch my body every day ma jox la nga ne ci every day ma jox la nga ne ci sama gars yi bëggee naa leen j'espère que yéen a ngi bu baax a baax a baax xaaral ma ñaaral laal leen yàlla yàlla yàlla defal la sutura xewal ak xaalis bu bëree bëri bëri amin ñuy wax amin moom xam naa ni yàlla mi ngi leen avancé loo ñi am xaalis ñi ngi gis résultat bu baax a baax sama gars yi Mia Guissé dafa génnee benn teaser bu dugal ko si TikTok bi dugal ko Instagram am mais voix yi Mia lan la wax ci clip bi clip bi clip bu xale la clip bi clip bu marié la wala clip bi clip bu lan la c'est <laughs> tet wax yi tàng na ma ne non lii foog ma def si vidéo ma jël voix yi décortique ko leen ko benn par benn lan la Mia wax sama gars yi balaa vidéo di commencé merci demee la vidéo abonnez bu fekkee yaa ngi ma seetaan nga partage nga commentaire bu leen fàtte yéen i aussi bet sama promo code 21 F la ça veut dire di nga boni cent cinquante cinq mille francs lien bi mi ngi ci commentaire yi sama balaa vidéo bi di commencé bu dee seize nga am <laughs> dama nga seetaan yi bu dee célibataire nga xale nga <laughs> dama nga seetaan yi bu dee marié nga nag toogal <laughs> nga ñëw ñu seetaan parce que mi yaa soo bi yéen la ko wayal wayal ma ko sax mais man ci laa bokk parce que man léegi ma takk jabar xam nga yaa mu gën a xam son bii nii pour ci man la bu dee 16 ans nga am tamit nga toog yow kase bu dee da nga toog seen famille bu seetaan vidéo bi de du ma tooñ de <laughs> let's go ñu xool benn par benn lan la Mia wax ci Tayza bi dafa mel ni après clip bi le 23 lay génn incha allah déglu benn par benn one by one one by one one by one. gauche wala droite dis-moi. Mia nee gauche wala droite. Dis-moi, madame, vous êtes gauche wala droite wax ko <laughs> comprenez si tu veux un wamba dis-moi. Madame, vous êtes bëgg nga ci kaw wala ci <laughs> let's go. le set dis-moi. lu tàng wala lu sedd wax ko lu tàng wala lu sedd di parce que am na ñoo xam ne lu lu tàng moo leen gënal am ñoo xam ne lu sedd moo leen gënal you know ma servir la bu 19 heures <laughs> lu tàng li di nga xam ni <laughs> dootoo ko defati. <laughs> ñu continuer. bu 19h jotee ñu tëddi. 19h jotee ñu tëddi 19h <laughs> tëddul teelul Mia 19h teel na de doo xaar 20h Mia sama xarit bi seet tët tët tët Mia doole ju bëri la àndal Mia mii barke seet bu 19h jotee ñu tëddi ah. ñu xool bu ñu tëddee lalalal mos ko de son la rek dañuy déglu dañuy décortiquer ko mais maanaam dama ko def comme rappeurs yi bu ñu nee na fii lii ak lii ak lii noonu laa def ci ci teaser bi te clip bi génnagul bu leen bëggee bu bu bu bi génnee sax ñu ñu continuer na metti na yàgg na mel ni. <laughs> na metti na yàgg na mel ni xaaral. na metti na yàgg na mel ni. na metti na yàgg na mel ni maanaam na metti. affaire na metti na yag na melni xalé bi bu ragal na nga yexi xalé bi bu ragal na nga yexi ñun kasse la ci kër gi na jolli. ñun kese la ci kër gi na jolli na jolli affaire yi na jolli na jolli na jolli mais danseuses yi yi ni ci clip bi dama len dama len xamé dama len xamé dama len xamé clip bi clip bi tise bi tang na de tang na torop. ma baby, touch my body. My baby, touch my body. li loolu loolu dafa mel ni moo anglais la de te ndeysaan maa ci jàng anglais bu métti ma dégg moo anglais yi xaw ma ko. ma xamee wala ma waxee wala ma wala nga xamee lii loolu dimbali leen ma ko ci commentaire ma baby dàcc ma paati ma baby dàcc ma paati I don't know I don't know, just like my baby Dutch Dutch ma Dutch <tsk> every day ma jox la nga ne every day ma jox nga ne ci. <laughs> soo tàng na de. soo bi tàng na jër barki yàlla soo bi tàng na jër Mia soo bi tàng na jër. xale bi teg ma lu metti. xale bi teg ma lu metti. bi teg ma lu metti nee naa son bi du soowu seize ans te Jamra ko dégloo nag son bi dina génn de <laughs> dina génn nag son bi nar naa garaaw de. ci yow la noonu ci maanaam. xale bi teg ma lu metti. bu yéexee ci yow la noonu non ci man na naa naa. kon xale bi teg lu métti xam naa ci dara de lii tiise kase la nag tiise génnagul kon clip bi bu génnee tamit marié yi fa la lii du son 16 de bu ko benn xale wu 16 ans di ko déglu am na ñu ne nag lii waru génn am na ñu ne war na génn waaye naa ci dara lii bu doon vote <laughs> ñii di vote naan da génn walla du génn. day génn <laughs> man maa leen ko wax. nekkul fois Mia moo wayal marié yi. dem leen ngeen deglu son kii nii Wally Seck waka waka ngeen déglu ngeen déglu wax yi en anglais la wax xam nga temps dama commencé dégg anglais <laughs> lu bëri <laughs> mooy loolu. sama gars yi li moo nekkoon vidéo bi demee la vidéo abonnez-vous ngeen partagé comme ni mu leen ko waxee samedi wala dimanche wala vendredi dama leen dugal vidéo comme dëkk bi le temps tout le temps you go to make money you don't have a time. Because if you go to, to, to, to, the, to the street, the, the people he speak a lot, he say, go to the work, go to the work. You know that. We don't, we don't, we, don't stay here to, to, to don't go to the, to the work. We, we, we, need the money, bro. We need the money. We need the money every day. God, I'm so guy. <laughs>